ñu ci bari si sénégalais wala muy ci yeneen xeet wala même ci italien yi ñu dalal day parfois suñ gisee liggéey soxla nit ku am liggéey ñu euh, jox ñu ñu jottali ko ñun nag jottali bi rek nag jam. ndaxte mbirum liggéey lépp luy intermédiation dafa laaj yoon agence de euh, d'emploi agence intérinale yi rek autorisation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 as nit ku ma oowoon ne ma moom sénégalais la mu ngi dëkk Ravena soxla ay ouvrier spécialisé surtout nak ay électricien ay électricien yu man seen liguey waxuñ ko euh jangalé waxuñ ko ko jang rek waaye ku ko mokkal am ci expérience euh, loolu la soxla bu bëggoon leen Angleterre mu nekkoon nak wax deug yalla xelat bu euh, rafetoon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

bayang ak jàmm baax man la Serigne Cheikh Diaw ah, waaw man la Serigne Cheikh Diaw waaw ma ñëwaat nak bëggaat benen avance bo xamé ni tour bi ma ngi bëgg ay soudeur waaw ah, ay soudeur la soxla ay soudeur yu am experience ci fil alimat soudeur yu mëna soudé fil alimat soudeur yu mëna soudé lo xamné dañ koy contrôler eh. waaw ah, lool daal la yëti won lool lool lool ඉස්ුදොලියම් එක්ස්පෙරියන්ස් යු ඉස්ුදෙන් ලොහමෙන් දෙකේ කන්ට්‍රෝල් ෆීල් අලිමාටු fil අලිමාටු def sopra testa man def salita loolu daal mom jiitoo naa ko loolu daal ndax day am ay prova ba pare waaw bu defee prova yi nag ba jàll après dañ leen si lañ leen door a defal contrat waaw ku mën a fil alimatu daal am nga liggéey liggéey bi nag contrat bu gudd doon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 fil alimat ak baguette aku man nak fil alimat nak la bëgg pa ku man baguette rek da ngay man baguette man fil alimat su fekkee mënoo baguette nga man fil alimat loolu mooy obligatoire bi lolu dal la yiti wo lolu lolu lolu ma ngi dellusiwaat neexee yàlla waaw asalaamaaleykum wa Baye Diouf waaw mbokk donc yéen a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 ci italien loolu wax deug yalla liguey spécialisé la yemul rek ci euh, am diplôme yemul rek am attestation de travail wane ne mës liguey ci soudure waye nak dafa laaj nga am expérience bu mag te nee na mbok yi comme ni ngeen ko déggee liguey bobu kum kum ku ci nek dal yaa koy guddal sa ndax ndaxte suñ la défé test gis né yow ay nga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

waaw mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp guddi parce qu'il est 2 heures du matin waye nak liko jar moko jar ko jaar ndaxte liggéey mooy dignité liggéey moy may euh immigré mbokk yi Serigne Cheikh Diaw yemul rek ci soxla ay soudeur nee na aussi soxla na encore ay électricien ñu tégal len ko ngén dégg ko. Diouf man bëggaan naa aussi encore annonce bi ñu ma defaloon dama soxlaat électricien ñaari électricien laa soxla ba ñett ba ñeent ñeent électricien yu man seen métier yu am expérience nag pas ku am ku def formation waxuma ku jàng école ku am expérience mooy ku ku yàgg si métier bi waaw ya, kooku laa soxla ku ko man lool ñu xëy ni foo ko dugal mu demal boppam luñ ko def loo xam nag kooku daal laa bëgg moom laa bëgg ñaar ba ñeent moom laa soxla fi mu ñaar ba ñeent daal laa soxla ñu ko man nag waaw loolu la laa yittewoon lool liggéey bi nag rabe naa la rabe naa moom la ñu liggéey bi rabe naa la liggéey suude bi aussi rabe naa la liggéey suude bi naa la liggéeyu aussi rabe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 man nga joxe sama numéro aussi ku ko man rek man na ma wo sama numéro si numéro téléphone bi ku ko man man na ma contacter si numéro téléphone bi waaw liggéey bi nag commencé na taxaw nga maanaam ku ko man rek lañuy xaar ku ko man man ngaa ñëw suba liggéey si bu neexee yàlla baax na jërë jëf jërëjëf bu bari bàyyi jëf jërëjëf jërëjëf sëriñ euh, Cheikh Diaw liggéey bu taxaw temb wax dëgg yàlla